ndeysaan moo ngi noonu huitième combat de la diggante Karbala ak Pape Dianka. Karbala ak Pape Dianka. Karbala keroog da koo tóor mu daan. waaw Karbala bi mu fi mujj. waaw victoire la fi jëlee. da waaye Pape Dianka bi mu fi mujj tamit victoire la fi jëlee kon bi ñu mujj victoire fi jëlee. keroog seen signature da koo dóor mu daanu moom Karbala waaye xale yëpp Karbala la ñuy topp ndeysaan kar Pape Dianka ak Karbala. Pape Diakha ak Karbala Pape Diakha ak Karbala ñoom ñaar ñu lewto nee naa leen Pape Diakha moo leen wan ginnaaw waaye Karbala moo leen wan kanam ñu ngay tourner autour du pot Pape Diakha ak Karbala Pape Diakha Karbala Pape Pape Dianka Kalbara Pape Karbala mu ngi noonu ñoom ñaar ku nekk wàcc nga ba ci suuf te sa garde ndaysaan Pape Dianka Karbala eh Pape Dianka Pape Dianka Pape yoor wóorul <laughs> ay li ma xam ci yoor Pape Dianka Karbala Pape Dianka Karbala eh tibb na suuf jogati ko song na ko jàppante nañu jàppante nañu Karbala da koy bëtt wala Pape Dianka Karbala Karbala daa bëgg bëtt Pape Dianka bañ na Pape Dianka bañ na eh mbetem ay ginaar yu xeex Pape Dianka Karbala <laughs> Pape Dianka Karbala eh duma ci jaar Pape Diakha Karbala Pape Diakha Karbala Pape Diakha Karbala arbitre leen kaay leen Pape Diankha Karbala ba tey dellu waat nañ ci diggi géew bi arbitre sifflé waat na ñoo ngay toppalante Pape Diankha dox ci kawam Khalil dama yaakaar ne Pape Diankha daa bëgg a ko Karbala def keroog waaw Pape Diankha mo ngay dox ci kawam ah eh jël na tànk ba yooru waat daan na la dalay daan welelelele oxo eh eh waay Karbala mi mooy lamb oh dalay daan waxoon naa la ko dalay daan daan na la Karbala bayit ba Bianca da nga dóor mu daanu ca signature ba nga ñëwaat daanaat ko bu maay man da damay bañ yëkkatil ma caméra bi jàkkaarloo ma xale yi yëkkatil ma caméra bi jàkkaarloo ma xale yi xoolal